A'udhu billahi minas shaytani rajim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu juli di hotel di Fetehu Ini dia di Niyubah Di ziarah Di lain dalal jammu Kita turu Tu wajah karam gep Wajah ki tu Komisi wabih Kami nanyom lindeng kewaluk Kham-kham di àllamnaatul ilmiya wa saqaafiya ci njiitul sëriñ Maamoor bi suñu wet ak mboolem mbokk yi ko àndal yëpp nuyoo bi dañ koy sof rek ci nuyoo sëriñ Sohaybu ak mboolem leeral yu am solo yi nga xam jot na koo leeral ci njëlbeen waxtaan wi te ni ngeen ko xamee jataay bi day bëgg a yàgg kon ñu ngi bëgg ànd ak sunu sëriñ sëriñ Mbàkke Abdu Rahmaan mi nga xam ne xam naa ne ñun ñëpp a commencé xam ci ay taxawaayam ci jàngale ci yare ci yeete waaye ci liggéey am solo yi nga xam ne yépp mi ngi am ci dëkk bii di Touba ku ne xam na ne ca ña koy jëmmal te doon ca ku ca am solo lool loolu yàlla dogal na ko ci moom kon moom lañ bëgg àndal ci ñaareelu xaaj bi ci waxtaan wi ni ngeen ko ne nag mbooloo mi daje fii day mbooloo moo xam ne dañoo bokk ci liggéey bii Touba ci kanam di amal ci daara yi te mooy formation te mooy dimbali jàngalekat yi ci yoon yi mën a jàngale ci ñeenti matières yi xam-xam yoo xam ne yu am solo la ci biir jàngale ak yare te taxawaay yooyu nga xam ne Touba Ca koy taxawee mu tàmbali ko ànd ceeg mbooloo mu bari ñooña gis njariñ ca nekk bu baax a baax dolli ko ca lool ci seen liggéey tax ñu tàmbaliwaat ko it mbooloo mi dëkk mal si ko jublu ko bëgg ko lool ñu boole koog nag waxtaan yu am solo yi nga xam ne moom ngeen ko xamee le am solo lol way li mënu ci ñak ndax da nga melni kuñ xamal fi ngay jaar ba nopi am ku ñew di la wax nak yi nga wara moytu ngir mucc ci sa yoon woowu lolu moo waral waxtaan yi am solo yi nga xamne mom lañuy la ak bokku yu bax yi Serigne Mbacke rahman kon tam bi ñi and ak mom moy formation bi ñuy defal serigne daara yi ndariñ lan la mëna am ci biir liggéey bi ñuy def te moy jàngale ci yoonu jàngale kon nit buñ ko formé ba nopi ca biir formation ba xamal nañ ko lu bare bare loo xam ne amal na ko njariñ ca lam jëm waaye nag bu ñu joxee Serigne Mbacke mu tënkalaat ñu ci tënk yu am solo ngir ñu xam nag dëgg dëgg lii ndax am na koo xam ne xëy na ba léegi moom mën naa mu jàpp ne formation daal amul njariñ ndax xam naa li may xam ba noppi yooyu yëpp nag jàpp naa ne ñàkk xam dëgg dëgg yëfi yi mën na ko waral su ko defee ngeen xam ne nag kon am na kilifa yu baax yoo xam ne teew nañ ci jataay bi bokk ci Serigne Abdoul Ahad moom Serigne Habibou bàyyi ko woon xëy na ngir ay yitte waaye ku jëmmal jataay bi la ndax ngeen ko xamee kenn la ci kilifa yi nga xam ne ñooy taxaw liggéey Touba ci kanam léegi nii rek teeru nañ fi Serigne Abdoul Fattah Gueye nga xam ne mooy président Touba ci kanam ànd ak Serigne Fadilou Ndiaye moom itam ak Serigne Mafari Ndiaye ak ñi nga xam ne ñoo lañ àndal liggéey bi di ay jàmbaar yoo xam ne ñoo taw liggéeyu Touba ci kanam te di ko defee na mu gën a rafete ñu ñaan yàlla mu boole dimbali ñëpp dëgëral ñëpp bañ mottali mboolem yéen yi nga xam ne am nañu ko waaye bokk na ñi fi teewit Serigne Mourtala Mbacke moom Serigne Abdoul Akram nga xam ne kenn la ci membre yi na fii ci lajna bi di al lajnatu hamiyya wa saqafiya ak ku ñuy wax Serigne Sidi Ñaan di kenn ci waajur yi donga yi nga xam ne ñooy jàng ci formation bii xëy na kon ñooñu rek lañ a bind fii waaye képp ku teew ànd ak liggéey bi it ñu ngi lay gis bu baax tey ñaan ñu bokk ci jariñ ñun ñëpp ñu xam ne kon matières yi nga xam ne moom jàng ci dawra bi te muy matières yi nga xam ne junj naa ko léegi bokk na ci ilmu tajwid nga xam ne ku ne xam na ne njàngum alxuraan dafa am nuñ ko war a jànge noo xam ne it xay na ca ginnaaw tuuti xawoon naa manqué waaye alhamdulilah tasaaroo na te yomb léegi te bari lool Touba Ca Kanam nag di def liggéey bu am solo ci biir formation bi ñu wut ñoo xam ne ñooñu ñu féete ci fànn googu ku mel ni Serigne Abdoul Khadir Mbacke moom Serigne Modou Dame waaye ku mel ni oustaz Imam Mara ñoom ñoo féete ci wàllug ilmu wi di ko joxe ci façon bu am solo bokk na ci yooyu turuqu tahfiz te mooy yoon wi ngay jaar ngir mën a jàngal xale bi xëy na ci yoon woo xam ne wu tënku lay doon. Ujub lol te bax te rafet lol machallah ku mel Serigne alhaj Ndiaye Cheikh Ndindi fete ñu ci fànn googu moom itam di ci ku am solo di jambar lol waaye bokk na ci yoyay itam euh, ilmu nafs at tarbawi moom itam lu am solo la ci kep ko xamni mi ngi jangal ak yare ñu ci and ak inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Ñang waaye Serigne Oustaz Adama Ndiaye mi nga xamne moy mudir dawra bi ñu nek di ñu dimbali ci liggey bu am solo bobu waaye di ci dimbali mboolem ñi nga xam ne ñooy ñëw di ànd ak ñoom ci liggéey boobu bokk na ci ñu fay jàng it al idara al madrasiya te mooy daara ji boo ko yoree ku ne xam na ne war ngaa xam nan nga ko war a saytoo nan nga war a saytoo daara ji kon day mel ni ñeenti matière yi ëmb na liy xew ci biir daara lépp taxtu Touba kanam tànn ko di ci dimbali ak seen daara yi te muy yoo xam ne it yaakaar naa bu dul woon ak formation bi man nañ ko bëgg lool mu te jafe lool ndax yu bari na ci yoo xam ne tur sax raar na ci ñu bari ci ñun ngir déet ko rek na nga am ko la ci mana taxaw te xam ko bu baax a baax kon defena lol loolu ndimbal la lol ci mboolem seigne dara yi lol yi ku oustaz serigne mohammed Diagne lañ ci andal ak oustaz serigne Cheikh souleyman badian muy ño xamne it wax deug yalla ko ba legi ñu koy and ak ñun di ci toggo coono yu metti ngerek ngir rek bëgg jariñu ak jariñe ñi nga xamne ne ñoo yëngu ci jang ak jangale kon dal lolou moy li nga xamne bëggoon nañ ko leral ci njëlbeen di sakku ñu maasi ñepp tewlu serigne bakam Rahman ci li nga xamne indi nañu ko ci waxtaan wi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 mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd bi ñu nekk ak bërëb bu tedd bi ñu nekk waaye rawatina fukki fan yi nga xam ne tàmbal nañ ko te ni ko mbokk mu waxi sànq bokk ci bis yi gën ci at mi ñu ngi siyaare ñëpp di leen ndokkeel di ko teg ci loxol sëriñ Mamor mi jiite liggéey bi ngir mu jot li ñu ko kilifay Touba ca kanam di leen sant bu baax nag di rafetlu seen liggéey di wax ne liggéey la boo xam ne kenn amatul lay ci toog di ci seetaan bu fekkee amoon na ku amoon lay mit lay wa jeex na ndax wax dëgg yàlla taxawaay ñi taxaw lu waroon ñu bari ci fu bari lañ gàddu ñoom di ko def loolu nag tey lépp di njariñul nit ñi njariñul diine jee njariñul réew mi njariñul ñu dëkk réew mi la kon yàlla yàlla dëgëral leen te dooleel leen te lépp di ndokkeel baax docteur Serigne Ndiaye Diop mii ci waxtaan wu am solo wi mu fi def bu fekkee ne mbokk yi teewlu nañ ko daanaka man na man doy na ma ngir mu wane solos formation bi ñuy wax ni amee solo du waxtaan waaye ab ab dars la doon joxe ab leçon la boo xam ne léegi wér-gi-yaram wér-gi-yaram lan la doon ci daara nit ki xamut wala teewut jotaay yu mel ni mën naa jàpp ne moom du docteur yorum nekkut ci yooyu day bàyyi ba gone gi wéradi rek mu door a jéem lijjanti yóbbu ko docteur te wax na ci biir loo xam loo xam ne diine la mooy alwiqaayatu xayru min al ilaaj maanaam fegu moo gën faju fegu moo gën faju te mel na ne jataay yu mel nii njariñam bokk na ci loolu fexe ba yi mën a gaar nit ba yàqal ko am njàngam nga fexe ba yow du ko gaar tom biñ biñ mbokk yi sàkkoon ñu waxtaan ci nag may sant bu baax Serigne Saliou Diakhaté bi nga xam ne ci moom la kilifay jaarale woon jokkoog ak man muy ko am yitte it am taxawaay tomb la boo xam ne it solo si mi ngi tàmbalee ci ñu ñëpp war nañoo xam ne jàngale ci boppam fànn la du xam-xam kese fànn la boo xam ne laa yutqinuhul jamia naka jekk ay nit ay benn benn ñoo ko man xam-xam mën naa bari ci nit lool waaye du ko mën a joxe maanaam bi may déglu Serigne Ndiaye Diop xamee naa ci ne ab docteur la waaye formé nañ ko ci lu ñuy jàllalee ab risala xam-xam mën na fee nekk fees del waaye bu ñëwee di ko wax bu noppee kenn du xam li mu leen wax ndax aw yoon la am nit ñi ngay waxal ñan lañ soo bëggee li ngay wax àgg ci ñoom foo war a jaar loolu lu ñuy waajal nit ki la loolu mooy jàngalekat ci boppam ginnaaw bu amee xam-xam bi muy jàngale dafa soxla ñu waajal ko ngir mu doon jàngalekat kon nit ki nekk aalim laa yaani ne ab ab muallim la xad yakunu aaliman wala yastatihu an yakuna mualliman loolu ñu ñëpp xam nañ loolu dafa mel ne nag suñu njuumte mooy dañuy jàpp ne ñun am xam-xam rek teel xaa yéen ab jàngalekat bi foo demoon ngaa jàngale fekk waajaluñ la kon jàngale lan la naq lu tuxal ay maalumaat la tuxal ay man-man la ak i xam-xam tuxal ak ak soppi ay comportement loolu nag faw nga waajal la ci xam-xam bi ngay joxe man-man yi nga bëgg mu jàll ci ñeneen bi faw ñu waajal la ci nga jekku ko boo koy joxee ban moo war a jiitu ak bu ci war a topp waaw ñii nga koy jox ban lañ ci gën a soxla ndax it léeg-léeg ngay joxe lu am njariñ waaye fi nga koy joxe du jariñ dara ndax ñoom soxlawuñu waajal jii ñuy wax na muy formation nag bokk na ci njariñam kon day tax jàngalekat bi xam xam-xam bi mu yore ak man-man bi mu yore ak soppi gi bëgg a ñi mu jëm ci ñoom fan lay jaar sëriñ ji li wax na léegi ne bokk na ci yi ñu formé turuqu tahfiz maanaa yoon yi jaar jàngale ay yoon yu wuute la bokk na ci tëlëg jàngalekat nga jàngal ab dong dara xamu ko mu ñu dale ko laajaat nga wax la nga waxoon maanaam nga jaar fa nga jaaroon loolu ci tële la bokk mooy war ngaa xam yoon yu wuute yoo xam ne kenn ku ne ci ñi nga ñi nga seqal boo ko jaaree fii sottiwut bu dee siwaatee seetal feneen loolu nag day laaj nga am yoon yooyu nga xam ko ñi ngay ñi ñu teg ci sa kanam pour nga jàngal leen kenn ku nekk nga jàngal mbiram ba xam yoon yi tadris yi bu ci gën a déggoog moom benn xam bi nga jàngale it ndax man ngay jàngale alxuraan waaye di ci bool di jàngale xam-xam xam-xam yooyu it xam-xam bu ci nekk am na yoon wu ci gën a jub ci jàngale boo jàngale fiq boo jàngale naxook sarf boo jàngale xawaayit bi sifa am wala ngay jàngale balaa ak yeneen yi bu ci nekk am na yoonu jàngale yin woo xam ne moo ëpp njariñ gën a jeexital gën a néew coono loolu nag faw sëriñ daara bi ñu waajal ko ci yooyu mooy tax mu mën a jàllale risaala bi bi ci des it faw mu xam moom li muy def nii lan mooy jublu bi maanaam ñun ñëpp xam nañ ne jàngal dafa am ay xaayaat maanaam tey lan moo tax ñu jàng xale bii ñu jër di ko jàngal fu ñu bëgg fa lan lañ bëgg ci moom ñu bari ci àdduna dañuy wax rek wala gën a mën a tekki na am xam-xam boo xam dana ko mën a jariñ ci àdduna Mawlaana Cheikh nag moom weesu na foofu dañoo jàngaloon ne raaye ci taalim mooy alhidaaya ci loolu sëñ daara bi moo ko war a gën a dund moom xale bi mu waajal waajalu ko ngir sol ay alxuraan kese ci dënnam boo xam ne mën naa mokkal alxuraan nit ñi te du tee mu nekk mbërum làmb soxluwuñ loolu waye nit ko xamne li nga def ci dënd bi moy nek ci ciri motax serigne bi la la huda bat bobu mana nañu japp ne raaya ci taallum fa serigne Tuubaa moy nit ki na nek muhtadi na gindik ndax su xasee gindiku xam fu muy tek tankam xam liko war digam ak boromam xam liko war digam ak moromam legi nak serigne bi fofu fo jaar am lola mu la demal jangi kon ñu jangal la bepp xam-xam bu am njariñ tàmbalee ko ci xam-xam bi tax ñoon la fi mu jaamu yàlla muy xam-xamu diine kon faw ngay njëkke te xam-xamu diine alxuraan ci jiitu kon sëñ daara bi mën nañoo wax ne moo jiitu ci nit ki ci defar ko moo jiitu ci nit ki defar ko kon moom buñ ko waajalul bu defaree ni ba noppi ba jàpp na jag na mën naa am fekk jagul ndax éléments yi tax mu jag nekkul ci moom kon bu ñuy wax formation kan moo ko soxla man na man damay jàpp ne ki ko gën a soxla mooy sëriñ daara bi jàngale alxuraan ndax moo njëkk ci gone gi ndax gone jullit li jiitu ci njàngam mooy jàng alxuraan te jàngum alxuraan du sol ay xarafi kese loolu moo taxoon sëriñ mag bi radiyallahu anhu ba mu wootee ci Mbàkke Kajoor ne woon ku fi jàng rek andi andi woon demal wuti ko feneen ñu loolu taxu jóg yow kon yor dong boo xam ne sa yitte ci mooy na mokkal alxuraan waaye caaxaan nu ñu woote ci bitti bu demee bu demee mën ko ub koku taxut ñu wax nak jangale kat bi ci formation bi, lay xamé yoon yi nga xamné bu ci sobo dana xam-xam bi waye li lim bëgg ci xalé bi xam-xam bi jeexital ko ci mom dana ko defaale kon loolu day wane ne formation amna dan solo lool dana ko wane it solom ci jangale kat deug deug moy defar nit société bi ni ni wara mel demal jox jàngukaay ya xol ko fa programme bu ñuy jàngalee ci am réew moo lay jox avenir u nit ñi bu ëllëgee ñu mel bu fekkee dañoo teg programme boo xam ne matériel rek lañ ciy sat adduna daal nu ñuy fexe ba lijjanti ko nu ñuy fexe ba am xaalis nu ñuy fexe ba nangam ci kanam tuuti alal dana jaral nit ñi lu waaye boo tegee programme boo xam ne diine cee necc moo koy wuuf moo koy gunge nit ñi dañuy dundu ngir dundal diine àdduna liñ ci jàng lépp ngir diine taxaw la foofa moom ngay séenu ay xale yu jot ëllëg xàmmee seen alaaka yi lu dox seen diggante ak seen boroom ak lu dox seen diggante ak seen borom jàmm kon boo ko formee ci anam gi moom jàngalekat bi gone gi nga tekki loxoom sa xel dara ma dal ci moom boo noppee ci moom li nga soxla da nga ko ci fekk mbaa boog lay war a jiitu jiital na ko feneen fu dem mën a yokk la mu ci bëgg ak nag mi liggéey bi koy liggéeyloo lam ca soxla ci ay jumtuwaay yi sëriñ ji la tudd benn jiituwu ca matière bi ngay jàngale alxuraan la ñuy jàngale kon faaw jàngal ko tajwid faaw ñu jàngal ko xiraa bi nga xam ne moom la tànn ne ci jàngale bu loolu day jàngale lu wérut nit nit nekk na ci barab di jàngal nit ñi mokkala leen loo xam ne te noonu lañ ko mokkale fu ñu dem noonu lañ ko tare ndax noonu lañ ko mokkale te wérut te seen sëriñ moo ko jàngal kon sëriñ ba tooñ na leen ndax jox na leen loo xam ne na mu ko joxe baaxul moom lañuy dem fu ne benn kon dana ko musal ci lool buñ ko formee ci xiraa formé ko ci tajwid dana ko musal ci mu jànge baat nu bokkut ak noonu te gone gi li nga ko jàngal rek loolu lay jël bañ ko daan jàngal wala laa lii ne wala laa leen loolu wax bi ko jamono weesoo weesu nañ dégg nga loolu jàpp naa ne lu ama am solo la ci sëriñ daara xam ne wër te mën a tàmbali jàngale te jàngulal moom waaye mokkal na alxuraan kese jàpp nga ne mën ngaa jàngale yow yow ki nga doon ak gone gi ñu jox bokku leen ay doomu aadama doon ngeen bokku leen beneen xam-xam bii de ilmu nafs tarbawi moo lay wan gone lan moo ko wut la yeneen gone yi boo dikkee jàng li nga war a mooy gone gi la indil nii docteur waxee nga xam ne war ngaa seet mbirum wér-gu-yaram fu mu toll noonu nga war a seete nafsaaniyam fu mu toll ndax gone la goo xam ne ragal na ay dóor am na gone goo xam ne boo ko xasee gëdd bis boobu noppi na tari xel mi day dem am na koo xam ne boo ko diggee ay dóor noppi nga koo jariñu xel mi du nekk ci lu dóoree ko waxee léegi am na koo xam ne boo noppee na fi wetam noppi nga ko jariñoo booy génn mu jën maanaam day toog fii waaye booy génn génn ci leneen lay nekk di foofu ba nga ñëwaat léegi nag loolu boo ci waajalul sëñ daara bi ba mu xam ne nit ni ni ko yarekat yi waxee ne téeméeri xar wenn yat mën na leen xàjji waaye fanweeri nit fanweeri yat moo leen di xàjji loolu li ñu tudde al furuqul fardiyya ci nit moom lañ bëgg a wane nit ñi bokkuñ nuñ mel bokkuñ nu ñu talaqiyee bokkuñ nu ñu téye léegi na yow nga bëgg leen sol ci benn benn léeg-léeg genn gone xel mi neex na mën naa jël nisif wala robo wala sumun tawal bi nga ne da ñàkk jom waaye sama yëpp sumun lay jël ko war ngaa mën a jël sumun te gàll soo yet wax naa fii léegi lu am solo man koy wax sëñ Abdou Khadir léegi ne ko sëriñ Abi Mbàkke radiyallahu daan wax lu am solo nee na jàngale jëru dóor nit nee li jër duma mooy ak jubadi daan ne boo ko joxee lu tollookum xelam toog ci wetam di ko xaj bu tare joté bu wul jiñ ko xelma way du ci mom eh, dégg wax boko ko lu talakum xelam kon da nga dirasa goné gi bu ko lënkaleeg Ibrahima mais nga xam man na jël su moom moom mën naa am xaju su mu sax jafé ndax non la ko yalla bindé kon jox ko lu tollookum xelam ginaaw bo jàngatee am xelam moy kan kon soxla nga ilmu naf sarbawi ngir xam goné yi luñ wutalé nee nak tok ci wétam di xaji ay waxu jox ko bind bi dem tëdd ba mu yàgg nekk saa kay tari fu mu jagee rek nga pes fekk yow yaa ko seetal gone naturellement yëngutu ak foo yàlla da ko bindi naa ko faral di wax leen gone goo gis mu gone gu ndaw mu jékki-jékki togg ne nojju loolu docteur ñoom xam nañ ko wérul day yëngutu di juut juuti loolu ñoo ànd léegi nag liy liggéeyu jàngalkat bi nooy fexe ba juut juut jooju nekk fi xidmati taalu maanaam liggéeyal njàng mi nga xam ne day juut juuti di jàng léegi loolu moom la formation di jariñ ci bi nga xam ne danga tax ba gone gii kat ak yëngutum bari li am solo ci yow mooy na xam ndekete yëngutu bi yàqalu ko njàng mi kon bu ko yàqal yëngutoom gis na boo xëyee xëy ne ko bàyyil yëngutu foofa la xel may taxaw kon soxla nañ ñu wan leen alim naftarbo yi ba mu leer seen bopp waaye soxla it li mu wax léegi mooy idaara ndax ab jàngalekat muallim la mudir la fil waxtu def si lépp moo ko doon mooy lan mbooloo nga seq war leen saytu am yeneen jàngalekat yu ne ci soroon nga war a fexe ba ñëpp di def li war a ci anam bi ñu ko war a waaye bëgg àtte ñenn ci ñenn loolu njubtal idaara yenn loolu njubtal am na koo xam ne yaa ngi ko bàyyi nu ko neex lay jàngalee am koo xam ne da nga koy forcé ko defal nii day yëg boppam waaye boo xamee ni ñuy idaara daara ji. lenn lu ne nga xam place am fa mu war a nekk ak heure bu mu war a nekk fexe ba ñëpp taxaw ca loolu mooy jéego bu jiitu ci nga am ndam ci liggéey liggéey waaye bu dee désordre fawda lépp dara tegut ci yoon amuñ heure jàng amuñ heure wàcc léeg-léeg gis ku mere ab donga taxawal ko yenn mu yenn taxaw ndax da ko mere gis koo xam ne ñëpp dañuy wàcc mu ne ko tey doo doo doo doo doo añ te mokkaloo maanaam mbokk yi loolu xam nga lu muy jariñ lu muy yokk maanaa xel mu naqari mi nga yokk am na yoo xam ne mënta saafara li nga bëgg saafara te yow sa yéene mooy da nga bëgg mokkal rek nga jàpp ne am na daara yoo xam ne bokkoon seen programme dañuy teg fee añ bi ku mokkal dem ba àdduna tukki am na ñoo xam añ duñ añ mukk duñ mas a añ duñ mas a añ yàlla leen bind seenu xel neexut te it bëgg ñu yem ak kee nga jox ko lu ko jox kon soxla nañ formation boo xam ne. dana tax nga xàmmee li wuutale gone yi ba kenn ku ne nga mën koo jox li tollookum xelam waaye li war ci soññi ko ak xàjj ko it nga mën koo def waaye danaa yokk ci majaal bi ñu war a former it bii docteur doon wax léegi al majaalu sihhi bokk na ci li ñu war a former si njàng ndax dars bi mu doon joxee léegi jàpp naa ne ñun ñu fi teew ñëpp jariñu nañ ci ne nit ki waroo néeg ba wéradi gi am rek nga door di lijjanti loo ko faje ginnaaw am na yoo xam nit ki da koy judduwaale boo ko teelee xam man koo faj ba du ko lor loolu li ci war teefu donc sëñ daara bi mooy li sëñ Souhaïbou bu wax léegi ne buñ la joxee dong laajul laajul mbirum wér-gu-yaramam fan la toll bu dee ko toll ci ñàkk ndax jeexal na ñàkk yi loolu yaa ngi koy dimbale ci yow day mel ne wér-gu-yaram ngay ngay sàmm waaye nag al aqlu saxih fil jismi salim loolu rek. maanaam balaa xel mi mën a mucc bay jël lu am njariñ day fekk yaram yaram wér kon faw yooyu itam wér gi yaram ñor sëñ daara ba nga xam ne euh, yii muy wax léegi yi gaar gone léeg-léeg gis gone wax day nelaw rek yow sa saafara du dara lu jël yaram dóor mu ngi xool ko ci sa bopp boo gëmmanti woon tey yor sa kurus ak yorub jukkee ci yam dara du ci àgg jàngoree gëmmantu nelaw loolu kenn tanewul ci mbokk yi gone gi gëmmentu nga bëgg ko fañi duma ko mu nopp du yaw ba bok bu yaw dana yaw walé lenen loo xam ne baaxut moom rek lol buñ ko xamé dañuy noppul bi ci dess dañu danañu dimbalé ci formation bi ñu xamé ci jangalé ak sawabit wal mutaxayiraat bokku na ci suñu jafé jafé ñun xàmmeewuñ yooyu yi nga xamné ay sawabit lañ ci jangalé mi ak yi nga ay masalan mokal alquran ci daara moko ko rafet man ko bi loolu mën nañu sawab ya, sabit la min sawab daara dañ ko samp ngir nit ñi di jàng alxoon di ko mokkal ñu leen yar yarub diine waaye ni ñuy jàngalee nak ak waxtu yi jang mom melamu mel bokk ñen ñu ne ak barab bu ne ak waxtu woni amna am soxla ci loolu bañ daan yew 4 h di jang ba suba ginaaw timis ba ginaaw ba ba ba ci guddii da am lu ko lu ko laajoon da ngi dégg waxtu yooyu fi ne tey boo nee man kat ba muy jàng alxuraan damaa jàng marax jàng njël jàng suba jàng bëccëg maa waxtu maa ngi jàng bàyyi woo xel ne am nga loo daan loo xam ne dong yi nga jàngal defuñ te gis am xel bu xasee sonn kenn tanewula ci mënatu ta jàpp li ñuy wax bornget yëpp xam nañ ko gone goo xam ne jékki-jékki lépp dem fa boo ko bàyyee mu tëdd nelaw ba yow lekk day tariwaat lépp kon yoy it japp na ne ci walu dara ñok gën soxla ndax ñun liñ yor da gën li ñeneen yor masalan tay gone gi nga wajal ngir mu jekk ci aduna ngir mu jak ci aduna ñom dañ koy tek ci condition yu bax yo dañ fexé ba xel ma du yaq mukk wër gi ramam ab coonaa ay noflay yëpp dañ koy sam ngir lan mu mëna teki ci Ya yow nak ñu jox la ko xam da wara tek ci aduna ak kon sa mission mu gën reuy ndax du yow rek defar nit ko xamni ndax ci école yi fa tey dañuy defar nit ba mu tekki mën a jàng am xam-xam bi ñu koy doyee bu dee fajkat dana mën a faj bu dee ingénieur la wàll nga wàll nga dana ko jekku lool man caa liggéey waaye bu amul tawféex nag du jàng fenn diine yow nag mën ngaa waajal koo xam ne diine nga koy waajal bu noppee loolee dana dem jàngi ko ba raw ca ñooña baa boog dana ci toll na ñëw kon yow yaa gën a soxla nga waajal sa euh, sa bopp ngir nga mëna joxé dawru bi war ci yow boko defut da ngay manki bi ci desit formation li tax mu am jari bok na ci jang day avancer bis bu yalla sak lolu sëñ inspecteur ñum lolu muy seen liggéey bis bu yalla sak ñu andi méthode yu bees curriculum yu bees di gën ndax lan méthode bi ñu doon kat baax na way ndek bi ko gën yow mi jàngale bu fekkon la nga yoron démb rek ja nga yam dañ lay romb motax tax toujours fi ne jàngalekat yi mujj ci terrain ñoo dàq jangale ndax ñoy gëna xam maalumaat yu yes yi am ci walu jangale té lool leen ko may mor formation continue bi ci def nga def ay animation pédagogique nga ngay def ay séminaire ndax lan di yok seeni capacité ci jang jangale señ dara nak day melni ciosan mom moom lon alcorane dugg na daara jàngale amul kenn ko yok bokk na ci suñu defu sax nak bu mu ñëwé di wax na la fànn sàngam nga jàpp ne ma ah man ma mokkal alxuraan bu yàgg jàngal naa fi téeméeri gone yi mokkal nga ñëw di ma jàng nuy jàngale mokkalal junni gone teewul soxla nga ko la dimbale loolu la yàlla dogal ndax dimbali dana tax nga gën koo jàpp coono bi nga doon daj wàññiku temps bi nga doon jël wàññiku te résultat yi nga doon am yokk loolu formation bokk na ci njariñam ñett yooyu sa coono dana wàññiku sa waxtu gën a néew sa résultat gën a yokk kon jàpp naa rek doy na pour ñu xam ne formation am na solo manqué manqué yi na ci yow ci formation ko yoo xamee am na jàngalekat boo xam ne am na défaut daa naqari daal man bokk naa ci ñi nga xam ne bi may jàngale alxuraan sama jafe-jafe bokk na ci boroom xel mu naqari mun mu ko jàng borom xel mu naqari damay jàpp ne li def moo ko tey soo ko sayee ñetti yoon waxut ñeent la bu am am am pese nga koy booleel. yàq yàqale ko de loolu lu ñu war a faj ci nit la wéradi la ak manqué la ci nit ki nangul ni doomu aadama ji nii ko yàlla bindee sa ndam yow mooy ak i defoom nga fexe ba jariñ du ne dong bi mën lu ma ko dara sànni naa loolu li tax nga di ko def mooy boo tegee wenn yoon ne ci la ñëpp jaar li wér mooy ñëpp duñ ci jaar moom am na koo xam ne boo ko doon rey du ci jaar docteur juñ ne ko léegi nit ki mën ko dóor ba gaañ ko mais mënoo soppi loolu ndax nit du moom du moom la laaj kon yaa war a jàngat kii moom fan laa war a jaar ak moom ba jariñ loolu jàpp naa ne ku ne ci noonu dana ko soxla yokk sa capacité ak dindi say faiblesse yi ci yow yi nga xam ne boo boo amee formation day gën a daj léegi ñu ngi koy wax léeg-léeg nga di ko waxtaanee nit mu la ah formation daal moom man yàgg damaa jàng waaye bis bu ci tàmbalee bokk boo léegi kenn du ko woo mooy jékki-jékki na saa kañ kañ la ñuy amal formation bi man daal yëg naa ne amal na ma adduna noonu la mel tey gis ngeen di adduna tatawure di avancé noonu la yëpp di soo yemee fenn yow mooy nis tuuti ngay dox ñëpp raw la kon faaw nga am formation bu continue moo tax jataay yu mel nii baax na lool ñu def ko lii euh, Touba Ca Kanam def dajale ay jàngalekat waaye ñoom jàngalekat yi bu noppee nañu organiser seen bopp di ko continuer maanaam gox bu nekk bu ne ña fa nekk xamante nañ amna ci ñu gëna jambaré jàmbaare liñ doon jël ñu ci raw ñu fexé ba daw riyan par weer par ñaar weer ñu dajé ñom di gëna a liñ jàngoon ak sét ñu ko jëf ñu ko jariñoo buñ ci doxé dir bu gàtt dañuy mujj nek ay formateur ñom itam nga né bu tuwa ci karam soxla tay ñom lay woo formé ñi dess té mbir yi mbir yi non la war doxé al ajiyal tataaqab ñuy dem di ñëwaat kon buñ japp mu ko né yow jël nga formation bi rek tok sa dara jappal né ñetti fan boko wuté benen xam-xam bu bes benen méthode bes mën naa génn téegoo kon del def formation continue téwé animation yi di jotaay yi formation yi yeen seen bir ngeen di def koñ bu ne mën nañ ko di ko def loolu maa ngi koy bayilo xel bokk ci yu melni buñ ko defé di jàpp naa yi nga xam tay ñi ñi ñi daara jubu wut ñi wut buntu pour yakal daara formation yi mën na fexé ba mën na tax ba ñu ndax goné guñuy gañ gaañ rek la wax amul jangale kat bu jubloo gaañ gone amul seenu xir nak ci bëgg mu mokal alcorane ndax mo gën ci lepp luñuy mokal bu andu ta xam gu doy man na waral nga gañ goné gi te fekk da ko bëggoon a jëriñ formation nak dalay dimbalé nga mëna jëri jëriñ ngeen doom gaañ ci gàttal la loolu la bëggoon wax ma ngi jéggul assalamu alaykum warahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahman ci leeral yu am solo yooyu tënku na lool waaye jàpp naa ne <clears throat> ñu fi teew ñëpp dégg nañ ci luñ mën a jariñoo bu baax a baax a baax te it lii sax lañ jublu woon mooy formation bi defe naa léegi mu diire bi ñu tàmbalee léegi weer weer wi nag liñ ci doon jàng daa mel moom lañ doon résumé fii tey maanaam liñ doon jàng ci weer tënkal nañ na ko ci ni mu gàtte kon jàpp naa ne ku doon dem di teewe jar sa jëlee nga fa xam-xam boo xam ne tey jii résime nañ la ko maanaam lii la bëggoon a jàngal waaw bu ko defee kon defe naa li si loolu moo xam ne si ñebe bi boo ko wax moom mat nañ naa bàyyi xel ñun ñëpp moom mooy jàngale dóor bokk ci warut am dóor daal di koy firi nag lu mu loo mooy gone gi jox ko lu mën a jël te toog di ko soññ muy jàng. bu taree mukkar nga jiiñ ko xel ma te bañ ko jiiñ mom buñ xolé suñu bop nak lu bare bare daan gis né man na ci ñom lay doon ndax léla ñu ne gone gi nangam mëno ko ñak jël ndax say maron ko jël forcé ko ca ñaaral bay bar na ci ñun ño xam na nga gone gi jangal dem tedd ci neeg ba té goné mom suñ cheikh seexu xaar daan ñu wax ne gone goone la tudd goné moy da fay nekk moy jang so fa nekkul nekk ci bopum la nekk waye jangal gone ko am maqamam ne ko jangal ma ñëw muy jangal amut kon def fay nekk muy jàng ñun nag bari na ñun ñoo xam ne moom jàng leen ma ñëw boo dikkee tari force loolu nag kon def naa xikma bu mat naa jël bu baax a baax te xam ne it nag gone gi nga jot ab jukki jox ko muy jàng ci wetam muy jàng mu wër na fawut nelawul mi ngi jàng bu taree mokkalul moom man jàpp naa ne xel ma ne maanaam maanaam du ci moom ndax ko santoon mooy jàng bari waa na koo xam ne daal la jàngal ngay jàng mu tiim la mu wër na jàng yaa ngi jàng foo te boo taree mokkal mu doole cay duma duma yooyu war na laaj mu tege moom koo xam ne jàng nga ko sant mi ngi jàng nelawut fawut tari jom mu tari mokkul boo ko dóoree ci loo ko dóor ndax da nga koo dóor ci daa jàng déedéet ndax da nga koo dóor ci daa mokkul lu lu ko waroon ngir mokkal jàng te jàng na kon su mokkalut waroo koo duma kon loolu moom defe naa ne doyoon na sëkk ak bind boo xam ne ma desoon na koo jël si fii rawatina ma bàyyi koo ci ku mel ni sëriñ Habibou ak li mu liggéey ci yoon wi li mu liggéey ci jàng ak jàngale ñu bàyyi xel loolu baax bi ci des mooy formation bi li mu ci wax bu kenn jël rek dem toog sa daara jàpp na jeex na na nga xam ne li nga jël mën naa gën a dolli mën naa gën a wér ndax ci diggante bu gàtt lañ ko def ngir ñu ko soxla bari na te temps amut ndax xam ngeen ne formation xam ne ci weer la diire nga bëggee jëlandoo ñeenti matières yi xam-xam ku ne xam ne loolu doyut kon noo war ba wut lu koy gën a dolli mooy li nga jël am na koo ko jëlandool wala am na ñoo ko jëlandool nañ déggoo suñu biir di defaat ay daje am mbokk yu baax yoo xam ne sax ginnaaw jataay bee jeexee doon nañ jéem defaat ay daje ñoom ngir xëy na lu mel noonu doon duñ waaye ñi nga xam ne ñooy jëlaat tam nañ bàyyi xel ne dañoo war a yokk li ñuy jël te mooy ñu fexe bay defaat ay daje di gën a dolli ko bu baax a baax bari na ci ñun ño xam nak suñu sik moy luñu jël rek doyna leen kenen ku leen di jema jox mom dañ lay jàpp ne koo xam leen am lo leen di jaay wala dara te fekk na nak nit ki lu mu la rek bo demee jël ko ci mom man na am amal la kon dal japp na teunk waxtan yépp weesu ñu xam ne ci match yi ñu jangal képp ku ci jema xereñe sa kam katan ne sa biir daal di ko appel ci biir daara ja sa cioro man na wañu tay ses résultats man na gëna bari ndax ñi ñu koy jangal nak li ñuy jangal xam-xam yu wër la yo xamne ñom ñi koy jangalé wane nañ ci résultats yu leer nañ kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te xam ne lii rek mooy solos jataay bii tënkal nañu mboolem luñ jàngoon kon yàlla nañu yàlla dimbali fan ak dégg ak topp te fayal ñu sëriñ Mbàkke Abdourahmane fayal ñu docteur bi itam ci xam-xam yi am solo yi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ ko waroon a jëggaani sonn ci la ko am waaye ñu toog ñu fekk suñu indi ñu ko kon ñoom yàlla yàlla na leen yàlla fay te defaat ñu ak dégg kon dañuy jox sëriñ Saliou Jaxate mi nga xam ne moo topp ci sëriñ Mamoor ci liggéeyu euh, laj na añ meew saqaafiya ngir mu jot jotli kàddu yi nga xam ne xay na mooy mottali jataay bi incha allah taala ñu maase koo teewlu Serigne Saliou kon bisimilah.